ñàkk bañ a respecté mesure barrière yi ngir xeex jàngoro ji di coronavirus ñi di waa police lancé woon nañ ab opération commando ci diirum ñetti fan ngir gën a mën a delloosiwaat sénégalais ngir ñu gën a topp ndigalu autorité sanitaire yi kii di commissaire Abdou Wahab Sall nekk directeur de la sécurité publique lancé woon na ab opération ngir dakkal yenn ci comportement sénégalais yi nga xamante ne mën na leen indil problème loolu nag mën ko xamle altine bi ñu weesu ba noppi way takk der yi dinañu contrôler masque yi ci marché yi ak bërëb bi nga xamante ne nit ñi dañ fay faral di daje ba ci sax ci biir oto yi moom commissaire Abdou Habou Sall di xamle ni si àllarba ji dinañu gën régulariser transport public publics nga xamante ne commencé nañoo surchargé depuis quelques jours. hôpital militaire bu wakam pare na ngir def dépistage public bu ñu sukkandikoo ci colonel Babacar Faye nekk chef de service laboratoire ba lu nu mel nag mu nga ko doon amal ci ab visite bu ministre des armées doon amal di Sidiki Kaba ci diggante 200 600 tests mën nañ ko fa def ndax amna tests ministre de la santé ci ay colonel Babacar di ministre bi rek la xaar a dépistage bu coronavirus. ci walum coronavirus la dessandi docteur Babacar directeur bu SAMU assistance ci mu La Tribune docteur moom dafa jàpp ne ay kàcc ak business moo am ci Covid 19 bi ndax loolu moo tax ñuy trafiqué chiffres yi ngir bañ a franchir baawu 100 cas par jour ba tax ci diiru fukki fan ak juróom la ñuy mën a évaluer situation bi ak impact bi nga xamante ne ndogal yu état bi jëloon nañu ko te bàyyi ko. ñu wax ci fonds force Covid 19 ci 1000 milliards yi nga xamante ne gouvernement bi dajale woon na ko 320 milliards décaissé woon nañ ko. Maguette Niang nekk coordinateur bu direction générale budget ci ministère des finances moo ko xamle démb ci ab plateau spécial bu ko invité woon ci RTS ak relancé waat bi nga xamante ne moo di transport aérien bu ñu sukkandikoo ci moom ci 52 pour cent ci xaalis boobule jox nañ ko secteur bi nga xamante ne moo nekk ci wàllu wér-gu-yaram 65 pour cent secteur sociaux yi nga xamante ne